ñun tey dañu fi ñëw en tant que le mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Mbacké ñu koy wax maire départemental de Mbacké ci ñu xamul luy maire nag maire mooy euh, structure boo xam ne bi ni dafa nekk ak élèves ak étudiants yoo xam ne nii ñoom ñoo bokk ci partie bi nga xam ne moom la ñu tuddee APR te le président de la république jiite ko donc tey dañu fi ñëwoon euh, ngir euh, dox ci ndigal li nga xam ne bi nii sëriñ Mountakha mi nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides joxe na ko ci màggaluk édition 2020 bii muy ndigalu takk masque donc te ku wax ndigal maanaam wax jëfe te ñun en tant que ay ndaw bokk ci parti bi kon dañoo war a dox te la nga xam ne nii tey moom mooy permettre tey ñi nga xam mi ñoom ñoo ñëw di màggal si ak ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk ñu mën a càmmoo ak ndigal loola. ca looloo nag ci lañ danañ def sensibilisation mais sensibilisation du yem ci wax kese. ndax bu ñu waxee nit ki rek takkal masque ndigal li mooy nga takk masque te it euh, euh, euh, mettre ñu ko ci ay disposition yu tax mu takk masque xëy na mën na am jafe-jafe pour sàmmoog ndigal li ci lañ ni dañuy confectionner ay masque ñëw xool pèlerins yi ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy dalal pèlerins yi ñu jox leen ay masque ngir ñu mën a sàmmoo ak ndigal loolu nga xam ne moom moom la sëriñ bi joxe loo bi nga xam ne tey confectionné nañu ko pour joxe ko tey ndax yemuñu ci commune de kese commune de Touba lañ jëm ndax commune de Touba moom mooy suñu cible principale ndax moom mooy abrité événement bi nga xam ne bii moom mooy grand magal de Touba. Euh, mais dañ ci boole tamit commune de Mbacké mu nekk suñu cible secondaire te commune de Mbacké moom mooy lieu de transition et d'accueil des pèlerins donc. Euh, mais bu ñu boolee tey li nga xam ne war nañ ko distribuer ci ñaari communes yëpp dina nekk euh, loo environ loo loo loo 5000 masques boo xam ne war nañ ko ci war nañ ko distribuer. te yemuñu ci masques yi kese tax am nañ ay gel hydroalcoolique yoo xam ni tamit war nañ ko joxante suñu biir pour que. fexe ba lépp mu nekk dans le respect euh, des mesures barrières yi nga xam ne nii euh, euh, waa Kër Docteur digle nañ ko te sëñ bi feddaliwaat ko pour que ñu respecté ko ci màggalu Touba édision 2020. message bi may lancé pèlerin yi mooy dañoo ñëw ci dëkk bi am lu leen fi indi muy màggal Touba te la leen fi indi dafa am ci ay anam yoo xam ne nii mooy kilifa gi nga xam ne gii nii tey moom moo waral événement bi moom moo joxe ndigal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jëmmal ko moo joxe ndigal ñu màggal ko dafa am lu mu wax. maanaam képp kuy pèlerin di ñëw booy ñëw na nga indaale masque boo amul masque boo ñëwee ci dëkk bi ñu jox la masque na nga ko takk ndax moom euh, waxut rek yam ci dafa wax ba pare lancé tamit euh, collecte minimum 5 millions de masques lu tax 5 millions de masques yooyu noonu dafa àpp que maanaam màggal bi nga xam ne moom moo mujj am minimum plus de 5 millions pèlerins ñëwoon nañu. donc pour sàmmoo ak loolu noonu anticiper na a ah nañ collecté lu tolloog 5 millions masques. donc ñun ci logique boobu la ñuy wax léegi li ñuy wax nag mooy képp koo xam ne ki yaa ngi màggal si te sëñ bi rek tax laa jóg boo ñëwee nanga nga sàmmoo ak li nga xam ne moom la sëñ bi wax donc loolu noonu ci la ñuy ñaax nit ñi ndax ci noonu kese ci lañ mën a màggale ba pare euh, euh, yóbbaale ngërëmu sëñ bi leneen lu ñu def lu dul lu dul li nga xam ne moom la sëñ bi digle rek maanaam màggal gi daanak moom bindu ci dox moom mooy yem donc ci loolu la ñuy ñaaxaat ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di leen euh, ñaanal màggal ak jàmm di leen souhaiter it bonne route ndax xam nañ ne instant bi jamono bi ñu ci bari ñu ngi ci yoon bi di ñëw te yoon bi xat na métti na waaye xooluñu xataay bee méttiwaay bi ndax pas-pas bi nga xam ne bii nii am nañ ko ci sëriñ bi ak cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci sëriñ bi ak li nga xam ne nii maanaam wax nañ ko mu nekk ay ngëneel ci ki nga xam ne ki def na ay sacrifice ñëw ci màggalu Tuuba gi donc ñu ngi leen di euh, masawu coono dèjà di leen euh, ña dalal jàmm te di leen souhaiter aussi euh, bon màggal jaajëf coordonnateur wax rek mooy cordinateur Moussa Ba coordonnateur maire bu Mbacké moom mi nga xam si moo ñu moo ñu mooy njiitu coordonnateur yee si biir si département bi nii di département de Mbacké lim si wax rek moom la ñu respecté mesures yi comme ni nga xam si sëñ bi dañ ñu jëfe ndigal li mooy ñi ñëpp ñu takk masque. moom nag si logique boobu noonu à travers son coordonnateur Abdoulaye Diagne si si geste geste bi nga xam si mooy joxe nit ñi takk masque si logique boobu la doxe indi ko fii ñu def première ak premier act bi ñu def ko fii si Touba fa seenee dem ba Mbacké àggale liggéey bi. kon donc si loolu daal lan nekkaat si lan bëgg dox nii mooy lan jox nit ñi masque ñu takk ak ak gel hydraulique bi bu ko defee ñu jox si ñi nga xam si ñoon lañ ko jox ñu raxas seen loxo bu defee ñu mën a màggal si jàmm zéro cas incha allahu rabbi